ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci mbir moo xam ni mi ngi xew ñëpp teg ci seen bët te seetlu bi mooy amul tànk ginnaaw flek révolution sonewul ba ku ne xam kanay kan ndax it liy dëgg mooy boo réew yi defaru yépp am na fu ñu jaar ba noppi laata ku ne di xam boppam te actuellement Sénégal fofu la tollu ndem ci yalla Sidi Lamine Niass yalla ñu ko yàlla fayal duñu tay ci wat vidéo mba yag nako wax ñu bari jappé won ko nitu fitna parce que mi ngi doon gis fi Macky Sall jëm ak ñun ak lan moy solution bi gis nga réew mi yéex yag dool ay élection koy défar dool waté dool wàcce kenn dool yégal kenn yéex yag révolution rek ko koy défar

te lii bu amee mooy nguuru Macky Sall jeexal na dafay nërmelu ndax li jot a génn fan yi rek ñoo xam ne préparé wuñ seen bopp yor ñaay ngànnaay yi déggoowuñu ci ay stratégie de combat ñoo ñëw bésul lëmm ñoo sonal wi ay takk der yiñ génne woon liñ doon wax naan li fi amoon dooti fi amaat daal di reproduiraat ci yenn localité yi te police ak yi mënuñ ci dara loolu li muy tekki mooy bu combat bi amee organisation localité bu ci nekk ñi nga xam ne ñoo bokk benn pas-pas te xamante seen biir bu ñu taxawee temm li ñu bëgg dañ ko am muy jële fi Macky Sall ndax actuellement jàmmi senegal mi ngi dépendre ci Macky jóge fi ak mboolem ñu màndal loolee nag nu muy demee dañ ci ñëw fiñ tàmbalee mooy lu tax résistance balaa ñu ñëw ci résistance bobé réew yu ko réussir yépp naka lañ ko organisé li xew mooy dafa am un président boo xam ni dafa ñëw nax sénégalais yi nax bi ci mujj te gën a flagrant mooy woo sénégalais yépp ci référendum en 2016 dépensé ci ay milliards ni mbiru toog ci nguur lànk ni doo fi jógee dama ko fiy jëlee ci réew mi. te loolu yéen askan wi la ñuy woo pour ngeen voté wi wala non su ko defee président bu fi toogati ñaari mandat képp ngay def dem sa yoon réew bi yépp nekk ci jàmm kenn bañ fee ci di jàmmarloo ndax mbiru troisième candidature te loolu Macky Sall mooy wax ne ci sama bopp laa koy tàmbalee. 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne. dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu. 2019 su boba man pare naa ci su boba man pare naa ci pare naa ci pare naa ci lolou dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële. kii wax li ci jamono gi mi wo Sénégalais ci référendum en 2016 ki démb mo dem ci bénn média français bu ñaan l'Express né de toute façon yoon may na mu présenté en 2024 yotu troisième mandat donte pour le moment nee décidé gul. maanaam lii li muy tekki mooy ñun Sénégal dañu am joo xam ni ngeen baal ñu ci wax ji dafay taxaw di fenn askanam te du ci am benn rusukaay koo xam ni nëbbul tootul ni moom kàccekat bu mag la lu mu wax tey suba mën na ci génnaat ba set ci wecc ne leen dama leen doon nax dama doon fooy seen xel yi donc question bi ñuy laaj mooy.

mais dafa taxaw nañu budul moom warul doon keneen moom mooy tànn ku koy wuutu ku ko wartu wuutu mooy seet solo diw arrangé na ko wala arrangé wu koom déet mu door koy bàyyi mu bokk ca élection. lan la ñu nekk di assister fan yii mooy une tentative de démantèlement du parti PASTEF cible ay personnalité yi gën solo ci organisation politique bi jàppaleen ci lu amul bopp amul genn. daa ci ñëw fii nag lu tax ñu bëgg ci taxaw mooy ñu bari jàpp nañ ni mbir yi Pastef la alors que xeex bi romb na Pastef ak seen leader muy Ousmane Sonko li Macky Sall nam bés bu sottee muy opposition dootul am senegaal muy buur di bumi te kenn du ñeme wax li ñu bari di fàtte mooy yefi yi tàmbaleewul ci Pastef ak Ousmane Sonko manam lu tax combat bi war concerner ku nek Karim Wade la ñu njëkk a ne ko dañ lay sa ciom ay milliards sénégalais ne buri deug ko na lèr ne génné suñu xaliss ñëpp ne na yoon def ligéem bañu daan ko ba nopi alaman ko di xaar nguuru Macky Sall génné milliards yi ñu wax ni fekk nañ ko ci mom ñu xey bëss Macky génne ko réew mi xaaju guddi ci lu kenn yëgul maanaam daal lañ lay tuumaal suñu yoon newu ci intéressé wuñu l'essentiel mooy bu dëggate sa tànk Sénégal banaan da nga yóotu normal tànk ñoo ngi càttum 2013 jàpp 2016 gannaaw Karim Wade Khalifa Sall commencé yëkkatiku ci wàllum politique bay waajal tournée nationale ndax def nay preuve ci Ndakaaru li ko wër

li Macky Sall bëggoon mooy yàq casier judiciaire am xañ ko mu mën a bokkati ca élection tey kan moo nekkaat la cible mooy Ousmane Sonko moo tax ñu ne leen xeex bi dafa dépassé jëmam ak partem ndax li Macky Sall bëgg mooy def Sénégal un pays de dictature boo xam ne moom mooy toog saa yu ko soobee di éliminer képp koo xam ne yaa ngi ci tànk wutu ko ci boppi réew mi bu pare ci kii dem ci keneen motax message bi ñi koy lancer moy yenn ci ñi woy seen bop opposition té mandu lol ci li fi nek di xew wala buñ ci wax itam pour décourager lo jeunesse bi mo li di tax juk ku ci yaakaar ni Macky Sall bu paré ci diw bam lim bëgg ci mom lolou daf la yok da nga ci prox ndol ba ku ci walum politique wallahi ya ngi nax sa bop politique ma tok mom ak jaay muslu ku ci yaakaar ci jamono jii pour mën a exister surtout ci nguuru Macky Sall bu yaboo nga dem noppalu ndax askan wi yeewu nañ. lan la Macky Sall nekk di def dafa cible responsable Pastef yi occupé ndombal tànk yi gën am solo ci parti bi tëj leen kaso ci tuuma yu woyof a woyof. Fadilou Keita bi nga xam ne mooy coordonnateur Nemmikou Tour. manam moy doxal campagne bi Ousmane Sonko teural ngir dem ci Sénégal gep présenter len programme am ñu ko rap tej ndax dafa bind ci compte Facebook am di laaj ndax dañoo sakal pexé di jëbat jëm e déet ñu ne déetawaay ñu japp ku naan Wali Diouf Bodion di inspecteur principal des impôts et domaines bokku ci protocole bu Ousmane Sonko di fa gérer lépp lu jëm ci walu sécurité luñ koy parce que dafa gungé woon Ousmane Sonko mu dem wuy tribunal en tant que membre staffam bi préparer vidéo bi lañu jot comme information que bayi nañ ko waye bayi bi nak danako mok prison ñoo yam ndax dañ koy takal ben lam bo xamni fu mu dem ñu mën di top di observer ses moindres actions lolou nak borom xel yi lu ci nguru Macky Sall jublu ñu yaakar ni fa lañu yam ñu visé nag lépp lu jëm ci wàllum communication biir Pastef arrêté seen secrétaire national muy El Malick Ndiaye ndax lan dafa bind ci page Facebook am ne Ousmane Sonko kenn ci dakk der yaa ko pompe li mu noyyi te looluy dëgg ndax vidéo ñëpp ko gisandoo ñu jàpp ko ci loolu ne ko da jibal xibaar bu wérul arrestation yi nag boolewuñ ci coordonnateuru Pastef yi nekk ci département yi ba ci ay maire ñu mën ci lim Bilal Diatta ci université yi ki ñu mel ak juróom-ñeenti enseignant yoo xam ni ba tey ñoo ngi ci kaso bi parce que pastef lañu bokk kon bu ngeen seetloo ñan la Macky Sall nekk di cible biir pastef mooy ki yore wàllum sécurité bi maanaam li war a aar Ousmane Sonko ñu libéré ko démb ba noppi takkal ko benn lam ñu naan ko bracelet électronique buy tax ñu mën a infiltrer kaaraangi leaderu Pastef bi keneen ku ñu jàpp itam muy kiy gère activité politique yi jëmm ji fexe ba Ousmane Sonko mën a saafonteeg mboole militant ki sympathisant yi fépp ci Sénégal muy le programme Nemmeeku Tour ak ki yor wàllum communication ki fexe ba liggéey mbaa yëngu-yëngu parti bi mën a yegg ci ku ne lii lépp nag lan moo ko waral la vérité mooy Macky Sall dafa tiit ba taqali ko sa góom léegi nag bëgg naa transmettre daal di wàll tiitaange boobu noonu képp kuy militant Pastef mbaa kay sympathisant wala nga gis ne lii ñuy teg Ousmane ko jaarul. alors que waxtu yi la mobilisation bi war a gën am solo ne serait-ce pour libérer ñi Macky Sall nëbb jant bi caay caaxaan parce que parti sàngam la ñu bokk mobilisation bi nag nu muy demee. El Niño. bés niki tey bépp kuréelu Pastef yi wala bokk Yewwi Askan Wi te nekk ci mbooleem département yu Sénégal te bu ci naam ay responsable ay njiit dañ ko war soppi def ko ay cellule de résistance ay section bañkat yoo xam ni soxla wu ñu organiser ay réunion publique wala privé déedéet dajaloo bi di waxtaan léegi jaratu ko ndax mën nañ leen repérer bàyyi leen xel di leen topp pour xam li ñuy waajal quartier bu ne ñi ànd ak Ousmane Sonko moo xam ñu am carte membre fam net tolloo nañ ci ay téeméer mbaay junni te ku ne xam nga sa morom donc bés ni ki tey communication bi de bouche à oreille lay nekk maanaam ma samba day dem wax ma demba nangam ma demba dem déeku ma xujja ne ko plan bi ni lay demee bés ak heure sangam la stratégie xex bi nak lolu benen vidéo la mais tay ci walum xeetu mobilisation bu bees la leen di wan muy la communication de bouche à oreille làmmiñ ak nopp nag gars yi teg téléphone yeeg groupe yi appel ak SMS yi neul tay def waxtanu biir nek xey dem dox sa mbokku natango patriote wala ngeen daje ci yeneen i yu jotewul daraay politique ne ko lii ak li la teural le sangam ni ak ni lañ koy ngeen communication bi police gendarmerie ak renseignement généraux yi mënuñ ci japp kenn ndax duñu xam ak kan ko quartier bu ci 200 jeunes taxawé temm benn bés Macky Sall il suffit que 200 jeunes patriotes yu xamanté bokk benn koñ déggoo daal di déclencher affaire yi ñeneen ñi ragaloon génn ñëpp parce que gisuñu woon kenn dañuy obligé dem fekki leen ci xeex bi ñu teg leen ci axe mu doon combat wu ay junniy junniy doomi aadama bu benn groupe takk der mënta téye doo ko yenn ci responsable yi nañu def seen liggéey ci côté boobu tàmbali waxtaanu biir néeg yi communication bi law xaalis bi gars daan defee ay téere ba réunion ak yu ni mel nañ ko génnee teel ci jënd yenn bagages yi balaa dara di xew ñi am les moyens te combat bi intéressé leen même bu ñu mënul wàcce sur le terrain ñu financer la résistance comme ni ko yenn leader politique yi daan defee 2011 jàpp 2012 donc tey dañuy yem ci mobilisation bi naka lañ ko war a organiser d'abord communication bi nu mu war a demee ci goxe goxaar yi beneen yoon. ñu ñëw nag ci matukaay yeeg stratégie bi naka lañu ñu war a doxali sur le terrain kon ndax jolo bi tey loolu woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf.